Fils de Balla Fils maa lay waaw ñu lay fay. su ma jubul père Balla sa bopp waaw Baye Balla moo ma tuddee tur bi moom moo ma tuddee tur bi. kan moo nekkoon Baye Balla. Baye mooy nit koo xam ne nit ku baax la Baye Balla daawul wax lu bu ñaaw du def lu ñaaw lu yoonam nekkul nekku si nit ku baax dëgg na yàlla ñun ñëpp a man moom dama dafa maa bëgg ba yabal danga man sax man la gën a bëgg a yuusu. ndax du ma laal kenn du ma laal école ba. parce que mu bëree ba bëree bàyyi bëre créé écurie yéen ñu ngeen nekk créé roi des arènes. waaw loolu moom loolu ko war bàyyi bale ainsi du làmb dara làmb ñoo ko ndax am kenn def na lépp ci làmb def na lu muy def làmb créé écurie am roi des arènes kon làmb na ak moom moom làmb dese làmb ko dese. dinaa feebar gisante nga. Ah, waaw gisante nañ moo doon ah. yàlla xaare ko àjjana rek amuñu leen la ñu wax affaire métti nañu trop ñun ñëpp la métti maa lay bëggee. maa lay Lom Fort baal sa wax ji maa lay siyaar. siyaar Fall baax doole siyaar Fall. xam la ci écurie Père Balla. waaw Baye Balla ba mu tuddee Lom Fort muy sama paa bëgg ma bëgg ma boppam ndeysaan ñàkk nañ loo xam ne daal mën naa ne duñ ko gaaw amaat si géejawaay waaw ndax Père Balla moom Père Balla ñëpp la boo ko fekkee si écurie bi xàmmewul Lom Fort xàmmewul Youssou Ndour xàmmewul Balla Gaye 2 xàmmewul kenn ñëpp la yemale def leen benn teg si mu leen di naan téeméeri mbër benn mbër la ñuy gunge mbër day am lu muy def wax jooju dafa nekk wax joo xam wax ju am njëriñ la dafa ne wax mbër day am si lu muy jàpp am lu def ngir ëllëg ñëpp mënuñoo jëriñu wax jooju am solo lu des ñaan buñ doon wax fii ba suur dox mu ñëwaat parce que ay mag yu baax jaaroon nañ fa te suñu borom ba mu leen soxlaa daf ñaanal fii mu tëdd yërmande suñu borom fekk fi suñu borom bàyyi teg teg si ay njabootam loxo loolu rek lañ koy ñaanal di jaale yu suñu bu baax ku nekk mën nga kaa jaale sa bopp ndax bàyyi bàlla man moo woo ne ma ma tudd beneen tur mu ne ma loo tudd foor ngay tudd waaw moom indi si làmb bu doon licence mooy bëre kon nag kon kooku mënu ma kaa fay dama koy ñaanal yàlla nag lu mu bëgg moo xam suñu borom yombalal si kàttanu yàlla. jàll bi maa lay siyaar yow. waaw ah, maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Cheikh Abdou Karim. amiin waay amiin amiin amiin amiin. Baye Balla xamoon nga ko de. Eh, eh, gannaaw bu ma sant yàlla sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant sama ñaari waajur sant ak sëñ Abdou Karim ak ma xam ne wax sant sama sëñ Abdoulaye Wade di sant nag waa Guédiawaye yëpp. waaw di jaale président Macky Sall di ko jaale nag sama sëñ Abdoulaye Wade di ko jàll képp ku takk ngemb ku ne rek maa la koy jàll di ko jàll rek waa CNG di ko jàll waa Sénégal yëpp Père Balla dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm xarit ko àjjana suuf seet ko bu baax si dara ji Seydina Ahmed sallallahu alayhi wasallam te ñu ne wax lii moom dañ see ñaaw njort ñaaw ni si njort lool lool lool lool lool lool lool lool ñaaw njort dañ see ñaaw njort pour yàlla yóbbu ko àjjana ñaaw ni suñu ron njort ndax xam loolu bala Balla ngay xol bay rafet te yàlla na ko yàlla fay xolam si daraje Seydina Mouhamed salaay salaam ndaxte lii boo gisee mbooloo bi nga xam ne ni du mbooloo wu a Père Balla Gaye 1 waaw waaw waaw damaa juum mais na ko yàlla yërëm xare ko ajana si daraje Seydina Mouhamed salaay salaam si barke alxuraan karim maa ngi koy jaawle nag xoolal bépp doomu Guédiawaye bu ne ak Sénégal lépp maa leen koy jaal man yaa ji di ko jaal nag Youssou Ndour di ko jaale nag Sénégal ak président Macky Sall di ko jaale président sama sëriñ Abdoulaye Wade di ko jaale Sénégal ñëpp wasalaam waaw maa ngi lay waaw yal na yàlla nangu ziar ñu ngi lay ziar tamit. xam nga Père waaw Père Balla kooku moo ma dugal ci làmb Père Balla moom man maa ñàkk parce que Père Balla euh, ak lu làmb yëpp a ñàkk waaw ñu ngi koy ñaanal euh, fi mu jëm gënal jëm fi mu jëm gënal ko fu mu jógee waaw mais Père Balla moom liñ ciy wax barewul. waaw yàggul dara rek ñoo ànd maa ko déposé sama oto vraiment ñu waxtaan mu ñaanal ma euh, kon. loolu yàggut mais ñu ngi koy ñaanal daal Père Balla moom suñu Père Balla la. baax na jërëjëf. maa lay siyaar suñu Babacar. Xaadim Anta Seck maa ngi lay delloo siyaar. Père Balla xamoon nga. xam naa ko si làmb parce que xam seedaan naa ko man en tant que bi may gën a nekk xale muy bëre seetaan naa ay kombaam mais itam bi ma bi ko nit ñi gën a comme man ni ma ko gën mooy bi mu bàyyee lambay encadré ay mbër. créé écurie waaw école de Balla Gaye ah ñuy ñaan yàlla mi ko fi jëlee mi ko fi indiwoon te jëlee ko fi yàlla na ko yàlla jégal taxare ko aljana mook bépp julit bu mu fekk yow mal parce que lii moom du jaas demal maa ngi ñëw la rek ñun ñi fi des yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu yàgg leen a ñaanal waaye ak lu mën a xew rek ñun ñëpp ñu dem yàlla na bu ñuy dem rek mu nekk ci njëgal suñu borom ak ci tamit yërmandeem daal waaw amoon nañu relation parce que mën naan am parce que comme ni ñu ko amee waa làmb yëpp ah parce que buñ ko soxlawoon ci interview du ñu jafe te fuñ ko fekkaan itam daan nañu nuyu jox ñu cër ràññewoon la par rapport suñu liggéey kon defe naa loolu taxoon nañu am ak moom relation mu nekk mag moo xam ne mag mu lewet la mag mu baax la

mooy que ni ñu gën a yéenante rek xam ne Sénégal ñoo ko bokk yaa ngi dégg ñun ñëpp benn la ñu mën a bokk gis-gis loolu mooy àddina mais bu ñu bañante bu ñu noonoo bu ñu waxante lu ñaaw parce que tey su la xeelu ñaaw wala moo tax ba nga xam ne daal nañu rafetal diggante yi rafet maanaam euh, comme ni ko olof yi di waxee rek rafetal soo mi duggee ko marché parce que loolu moo war a mën a am jarut ñaawoo jurul waxante lu ñaaw ku nekk fa nga ne war nga fa mën a nekk di évoluer def la ngay def yaa ngi dégg nga wax sa morom lu ñaaw du tere itam ku ci ne lii sa wërsëg yàlla dina la ko jox kon nañ rafetal diggante yi di ñaan yàlla képp ku tëdd si armel yi rek yal na la yàlla jéggal barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jaajëf xaadim maa lay la jóg maa ngi lay fay bu baax a baax di la nga Père Balla waaw xam nañ ko ci làmb bu baax a baax di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un comme ni ko Babacar waxee rek koo xam ne danaan takk ngemb di bëre ba nga paree si nga nekkaat ci biir làmb di tëgg ay mbapat xale yu bëri lu xekkoo sa mbapat nga ñëwaat formé école de lutte ku ne xam ne ni ku njëkk a formé avec de lutte Père Balla ci la bokk yamoo ci loolu nga ñëwaat nekkaat ci presse di wax ci làmb kon moom maanaam amul loo xam ne làmb desal na ko dañ koy ñaanal rek suñu borom xaare ko àjjana firdawsi fa mu jëm gënal ko fuuf fi mu jugee loolu dañ koy ñaanal di wax ni comme ni Babacar wax na ñëpp doon benn ku ci nekk li nga nekk rek nga nga gëm ko ñu bokk luñ luñ bokk nga xam ne buñ ko defee rek Sénégal jëm kanam waa ndax ñu ñëpp ay doomu sénégalais yàlla ko suñu borom xaare àjjana fi daw si ndax àdduna noonu la kenn du fi nekk di dund rek waaw demal maa ngi ñëw la lu ñu naan gën a bees la ma fa a métti la amul ñu ngi lay kontaane bu baax a baax di kontaan jaajëf ñi ay mbër lan de ci mooy maa ngi lay fay bu baax di waaw Père Balla avant tout ma koy jaalewaat waa Géejawaay rek di wax ne Géejawaay ñàkk na monument bu mag koo xamante ne mbëru Géejawaay yëpp la yemale ku baax la ku mu gis dina la jàppe comme doomam ba pare jàppale na ay jeunes yu bëri pour ñu dimbali seeni i parents loolu daal mën naa la seetlu si moom. relation. waaw amoon nañu relation bu baax sax parce que dama doon dem waxtaan ci lu bëri waaw moom moom borom baax la waaw. maa ngi bëgg. ok. mobile. mobile maa ngi siyaar. xaaral xamoon nga waaw suñu papa la woon xamoon nañ ko bu baax a baax baax. waaw relation papa ak doom rek fu mu mosaan dajeeg ñun bu dee cinq minutes dina ko def si ñun yeb ñu li ñuy yeb Youssou Ndour ne leen jaamu yàlla li ngeen di liggéey waru leen a yàqal jaamu yàlla nii ak nii ak nii ak nii dëgg yàlla muy mag mu jullite di mag mu am lislaam ah di wax ne marqué na empreinte am ci réew mi ndax fu la Balla Gaye de romb sa xel dem ci moom it ak keneen ak keneen ak keneen dañu koy ñaanal lépp luy lu baax te mu def ko fi yal na ko suñu borom fay ci bisu tay bi yàlla na ko borom tabal ci àjjana firdawsi yàlla may njaboot gi xolu muñ barke Seydina Muhammad jaajëf Balla Gaye gi noonu nangul wax ndeysaan xol bi dafa fees du fees tur turandoom moo génn àdduna muy Balla Gaye 1 waaye nangul wax àdduna nii la dewal maa ngi ñëw la kul na seen saay xatil moo la yàlla wax kul mën a la yaa fànn waaye waaye nangul wax nangul wax nangul wax xol baa fees dañ ko nangul di ko jaxal liiru jaan a ngi nii mbay di waaye liiru liiru sax nangul wax xol baa fees tey làmb làmb moo ñàkkal jóg tey làmb ndax Kër Balla mu ni ma